am na góor ñoo xam ne mën nañoo bañ a mën seen bopp est-ce que xam nga li ma la wax. waaw seen jabar yi téye leen foofu téye bin leen téye jàpp nañ ni bu ndaw si demee day nettali ji loolu. ndax li mu waaxoo ñëw télé. wax ko leen teg ñu nangu. voilà li mu waaxoo ñëw télé jàppoon naa ni mbokk ndaw si gënoon na fee gën a jege parce que ñàkkul ndaw si tey jii njaga famille ku fa takk am koo fa xarit tool ku gën a doon sa xarit. pourquoi que tey Oustaz Mouhamed Mbaye bu takkoon rakku njaga lii daal ko munul woo njaga waxtaan ci ak moom ni ko ah te ngaa wax ak sa rakk bu jigéen ndax kat li mu may oustaz bi ëpp na wala mu wax ak magam bu jigéen mais bu bëttee loolu lépp ñëw ba ci tele bi wax ça veut dire que moom est-ce que bëgg ko suturaal aussi. voilà mais suturaal xam nga xam nga xam nga euh, souvent may dégg. Uh-huh. ñu naan lu tax mu ñëw ci télé bi rajo bi. Uh-huh. Euh, mantu bëri na lu mbokk daan réglé euh, coow li yegg siwul woon ci télé bi rajo bi. Uh-huh. groupe de famille yii ñu def. pour mu pour mu pour mu pour mu jubalee famille moo tàggale famille yi oh, ndax ndax waxatuñu ci groupe bi mais ci suuf la ñuy wax mm-hmm. ñaareel ba mooy am na koo xam ne xam na ni ku mu ko wax nga wax ko ki ci des mm-hmm. xarit yee bari damaa xaritoog mandu te mandu daa xaritoog Mouhamed mm-hmm. kon kon su ma ko waxee su ma te te te mën na am Mouhamed mi nga xaritool man ak moom jubawuñu mu ne mooy transitivité d'une relation. transitivité d'une relation. ku ko bëgg yaa ngi dégg <laughs> mën naa xaritoog mantulaay te mantulaay xaritoog yow waaye man xarituma ak yow te wóor na ma su ma waxee mantulaay mantulaay dina la ko kon ma bañ ko wax mantulaay mm-hmm. te ma ne lu ma waaye wax ma wax ko Papa Ndoye maa wax loolu léegi nag naa ko léegi nag li si des moom mooy am na borom xel yu sell yoo xam ne ñoo ngi toog di seetaan te boo ñëwee du ñu jàllale sa tur sa voix dañ koy changé mm-hmm. te boo toogee fukki boroom xel sotteeku di nga jël fukki xel yooyu xool ban moo la ca doy mm-hmm. nga utiliser ko c'est vrai ñaareel ba moom mooy gis nga liggéey bi jàpp bu dee dañ koo liggéey moom ndaw si liggéey bi ñu def ndaw si moom la ñu ale ku góor ki. Mhm. waaw ah bu dee. bu dee dañoo liggéey ndaw si moo def ndaw si ak paa bi. bu dee bu dee ustaas bi daal liggéey ndaw si. Mhm. liggéey bi mu liggéey ndaw si. mu liggéey ndaw si moo jàpp moom la ñu liggéeyaale ku góor ki. Mhm. kon bu ndaw si daa gën a jàpp. yaa ngi dégg bu baax li ma la expliqué. noo def ku góor ki gën a jàppale. noonu njaaga ndax ku góor ki moo waroon a toj ku jigéen ki te moom moo ne selaw mais ndaw si njëga jàpp nga ni liggéey la wala teeyaayu ba kenn parce que ñaawte fi ci réew mi yëpp buñ ko wéeree liggéey la yow man man musuma d'accord mhm. ko tegee bu ko raw moo tax buñ si musaan waxtaan uh-huh. mantu buñ si musaan waxtaan dama naan man musuma bu ñu andee liggéey ak ay rab mhm. teg ko rek solution du am dangay ngay bañ te ki rab jàpp ba mu ki jàpp ba mu def jëfin gi am na koo xam ne rab jàpp ko te moo ngi def jëfin gu raw loolu moo mooy mooy li ma la léegi wax naa la ko léegi nee naa la ni est-ce que ndaw si tey amul feebar bu dal waa pour nga pour ma génn ci affaire ñaan lu dëggantaan teg ko ne may nettali koo xam ne bu dee xeex bu dee xeex ak bu dee bu jotee bay xeex ak moom mhm. ci waay yàlla yi rek bi yëpp am nañu mel noonu te ko jàppee dootu ko bàyyi am nañu mel noonu c'est-à-dire dafa am lu bon mhm. naturellement dafa am ñoo xam ne ko njaga lii lii dafa jege dafa jege waaw kër sënu ku cal jeex na waaw ngi noonu nag yaa ngi dégg bu la nemmee sooda rek suude <laughs> Ah, man <laughs> bu ma nammee soodee dama lay suude. biir hmm? waay. Ah, <laughs> maa la man saa yoo amee néegu def ma nangam. pare naa pour néegu fayu. saa yoo teraanga yu baax ci man. Uh-huh. am naa teraanga yu bu ko ëpp. wallaahi bu jëmale ko ci yow mantu wallaahi wallaahi noonu def mantu dafa am jigéen ñoo xam ni seen mbon weesu na lii. waaw jigéen yoo xam ni seen mbon weesu na lii. xam nga jigéen bi nga xam ni ak liñ wax ci noob ci noob. Mm-hmm. ci bu fanaanee mm-hmm. noob. ci boo ko defee nangam nopp ci bu dëj amee nopp ci euh, naq ya nopp nopp nopp nopp mhm. nopp yooyu jigéen sañ koo def jëkkëram te xam am risque yi ci nekk kooku mën kooku kooku mën naa jox posen <laughs> jëkkëram mu ah. waaw mais nag waaw mën naa jox pos posen jëkkëram te jëkkëram du ko yëg mantu mantu am na ji góor ñu dee ñu bari ñoo xam ne li leen rey ci seen loxoy jabar non demal Almeria <laughs> demal Almeria di fëgg di laaj yow diw lu la rey walaay soo mu ne la nga lax ba ma naan nga yeeki ci des ñu ko yow lu la rey mu la soow mu mujjee naan moo tax soow mu naturel moo gën a dal xel moo sew bu demee bay bees waaw nga dem ba soow mi bees xawal xawal arrière tuuti ngayee nit ñu ko la rey mun ay sama cere daaw ja bari na koo xam ne njaga mu ci biir suuf maa ko rey de bu yowmal xiyaamee aljana bu nuy lekk maaka mu ne Sénégal jàngi yi bu ma ko lekk faw ngay gën di làkk français pour transitivité d'une relation transitivité émission bi waaw waaw transitivité émission bi nee na dama ne dama ne alima g nakate baat bi du noonu g parce que damay gis statut yi mooy koo xam ne da am naqar. j'ai larme j'ai les larmes aux yeux. waaw léegi du noonu <laughs> bàyyi li ci télé man nag noonu laa ko liiree j'ai larme mes yeux mais <laughs> ay seex ni ma égré bi dindi <laughs> léegi nag man dinaa ko jàngaat kon ki ko bind ma non ki ko bind ma faussé am mën naa lire na ko de waaw mais tey man ay dee damaa jàpp sax seex gis nga ñu not pour man bu fekkoon ni waa ji de oustaz bi day not ndaw si daf koy not moom fa mu nekk à tout le temps mu ko fay fekk man gisoon naa jigéen joo xamante ni njaga euh, koor bu mu saan a jot balaa muy tegal jëkkër ji dafa am benn ñàkk bu nekkoon ci koñ bi ñàkk bi la yóbbul ndogu ba pare dama ci daan tëj bët mais dama naan mais pourquoi que ndaw si ndogu jot jëkkëram ne ci kër gi mu yóbbul ñàkk mook jëkkër ji ñuy xuloo mu ne ko dama koy jàppale parce que ndoxu déem la ci koñ bi ay te boobu laa gën a nekk ndaw nii mais après euh, au fur et à mesure ngay màgg parce que coowee mu son fekkee day des mais ma ni kii ban ose la daan osé ba bay jël lekk di dem kër joolaay di ko yóbbul ñag bi lan moo tax mu ni parce que ñag bi man mantu ndoxande mu ñëw ci réew maa du bàyyi sama soxna di ko féetewoo naan dama koy magoo wala dama koy rakkoo am nga démb wax bu am solo boo wax te ma te nangu ko ah xaritu góor ak jigéen buy am day fekk mu am cosaan cosaan mooy ñu nekk démb nekk ay ndaw di màggaaleeg moom mais ana yow ana man ñu tase euh, diggante 2000 2001 kii sama xarit la bëgg koo présenté sama borom kër man bi ma ci gën a ragal mooy kii sama càmmeñ la wala ay doomu nijaay lañu doomu la jur ci mbokk gi diw moom ku ko moom ku ko jur hmm. waaye ay doomu nijaay lañu rek ndeysaan dañoo daje hôpital sama cousin la sama cousin ko def hmm. sama cousin la ko cousin boo xam ne doo mës a xam yaayam ci famille bi ñu la ko muy yendu ci kër gi dafa attaayal waa ji te kat dañ koy def attaaya kat de. waaw waaw muy attaayaal waa ji. ñàkkal fay la ko na xool di ko yaa ngi sa musu. xoolal suñu temba. waaw ah. yaa ngi yónni sa musu bu day dem euh, euh, càmmiñ ba lay dénk kër ga. waaw ndeke càmmiñ jaa nga sëgg si jabar ja. day di ko da koy remplacer si kër gi remplacer ko. mantu xanaa xamoo ne dafa am ñoo xam ni. ci hmm. seen biir sëy fulla dañ koy manqué toppatoo góor beneen góor moo leen gën a toppatoo seen jëkkër am na xoolal rangele fexe ba beneen góor suur waaw moo gën seen jëkkër suur fexe ba beneen góor ñëwee na nga koy toppatoo mais ni mooy sa jëkkër fexe ba beneen góor set moo la gënal sa góor sa sa kii set nu mu tëdd sa jëkkër set. waaw bu góor añ see sa kër da ngay jël tarson tarson lalal ko. waaw jël kaas tegal ko. jël ndox tegal ko jël kuddu tegal ko. Oh. te pourtant boo dee jox sa jëkkër añ. da ngay ñëw rek ne ko am. añ baa ngoog ak oustaz njëga dagguma la de waaye am na sama benn xar boo xam ne nee na. Mm-hmm. dañoo àndoon fenn moo borom këram. ak xaritu jëkkëram mi ak ak ak soxna nee na waaye benn soxna ma damaa seetlu ne ni muy toppatoo sama borom kër moom toppatoo ko borom kër daal toppatoo na ko ci façon bu ne lekkal naanal maanaam di ko jox daal ko sol nee na fala sama xel commencé waaye ba ma toppee mbir mi ba mu sës ndekete ñoom ñaar ña nga ca oh, oh, oh, man man ne ba ko toppee mu ah, ah, ah. dafa am lu ñu seet walaay am na lu ñu seet mais ma loolu lu jigul sax jigéen jàpp beneen góor bu dul jëkkëram gën koo toppatoo ko jëkkëram mantu ko sa communication faible njaga ñàkk fayda njaga ku sa communication faible faible nga dee man bu ñu bokkoon di lekk xalaax nga yow góor nga samp tegal sama soxna sampaat tegal ko man la yow xanaa doo tegal sa soxna dinaa kaf ba def ko ci ree ne la xam naa ni diw moom sa fan si la ndax maa ngi sànk ba léegi yaa ngi koy tegal ku ñëw ñu jël ko mais dama la ni la man téléphone bi ñu lancé ko 88 628 89 90 ñu bës 2 88 628 28 28 ñu bës mooy pour suñu mbokk yi nekk bitim réew ubbi nañ téléphone bi tàmbali leen woote yi ñu jël xalaat yi doy na waar thème doy na waar waaye xalaat ak xalaat yi aussi Mouhamed est-ce que ne am na góor ñoo xam ne am na góor ñoo xam ne kenn liggéeyu leen déedéet waaw ñoom ñoo mel noonu naturellement. ba ba takk jabar jotee sax dañ leen dañ a takkal jabar andil leen. am na góor ñoo xam ne bi takk jabar jotee maanaam di ñoom di mu ñu ci seen ci seen calme. ci seen yaru. waaw c'est-à-dire comprendre nga. maanaam dañoo dem takk jabar sax. jigéen ñi moo dem mooy góoru garaaw yaa ngi gis commentaire bi ma gis léegi. yaa ngi mooy góoru garaaw. jigéen ñi waaw kay garaaw koo andi baax na du ma ko def. waaw waaw nga andi jabar nag na nga jabar joo xam ne nag moo la sut. waaw maanaam ku la avant nga di ko takk moom am na juróomi benn far yu jaar ci moom kenn ku nekk maraat na la waaw yow mu takk la yow nga takk ko nag ah. nga xam ne xam na biir xam na bit yow xamoo ah, dara waaw mais yow da nga mel ni laaloo mbàpp yàlla def yow moom naarul lay yow yàlla def bu dee laaloo mbëpp sax moo gën mooy gën a doy yaa ngi dégg oh. yàlla def yow moom xale bi moom xam moom moom ku jigéen ki <laughs> faal goro moo rek kii <laughs> moom ku laalu bëpp laa waaw waaw si dëgg la yaa ngi dëgg la moom moom ku góor ki mhm. xamul dara ci yow la xamee jigéen. kooku day defee ni moom bu la ñàkkee amatul beneen jigéen ci àdduna. waaw très bien am. parce que li mu xam ci àdduna si ci ci nite yow ko ko xamal. c'est vrai ñaareel bi de bu xol am na léppam àddunaam yëppam ci yow la ko dal pour yow boo demee àddunaam yàqu na. Ah, léegi moom ku jigéen ki bu amul xel. day chantage ku góor ki. dégg nga commentaire Elzo Ndiaye bee. moom la maam Sidi wane merci beaucoup maam Sidi mu ne mantu billahi même chose moo am fii. Mm-hmm. Euh, fi ma dëkk waa ji da daan dem si femme bi di romb jëkkër ji si kër gi entrer dans la chambre avec la femme bi ko waa koñ bi waxtaanee lim leen tontu mooy sama jabar la maa ko abal. maa ko ko ah commentaire la bu nekk. ci ci Sen TV l'officiel kon ma li Ndiaga wax nga ko mantu est-ce que xam nga ni d'accord am na ci yoo xamante ne damay jàpp lii ndaw si temps bi sa jabar nekk ci néeg ba nooy def mais njaga damay jàpp góor <laughs> gi na ci am liggéey njaga am yoo xamante ne tey mën nga ni lii liggéey la jigéen mën a dem ci seen ah def góor loo xamante ni tey ji lu mu ko wax mu def mais dama ne la thème bii hmm. njaga man démb rek am na ko ma téléphone yi ma oustaz démb dama la gis ngay wax ci thème bi ba ñaq man parce que dama kaa yenn sama bopp man ba toog mhm. li ma yenn sama bopp mooy imaginer rek ma tëdd ba guddi mhm. nga woo téléphone parce nga mantu nga sama soxna jotoo ko nga woo ma téléphone xam nga mantu leen mën naa nekk du ngeen ma baal ngeen yónni ngeen jox ma yére yu ma war a sol damaa jëm programme bu ma bett ak loolu dof dof xam nga loolu dof la rek dèjà ah. mais nga romb ma dugg ci sama salle de bain sangu sangu ma xalaat man sarbet nga war a nga war a lioo ak naka nga def ba miin ko pare ñëw sa ak sa sang-froid ci ñaar waaw mais oustaz bi ku baadoola la ibbi batan <laughs> ah oustaz yaa ko sañ a wax de non jël na dafa baadoola ah, jël ah, oustaz ko wax de même bu amee xam-xam sax dafa baadoola démb damay dama ne ci yoon bi ba caag man njaga dinaa ko wax bu amee numéro waa ji na ma fexe ma am numéro oustaz bi laaj ko yow li waaw waaw njaga waa ji de am na numéro oustaz bi dana ko jox nga wax mu wax ak moom ma laaj ko vraiment tey ji li beneen bi mooy bu ko jaree ñun équipe bi yëpp ñu woo ko wax ak moom wala yaa ngi tas kër jàmm damaa démb dama ne woon bu amee nañ ko jël allo allo allo salaamaaleykum allo asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi wàññil télévision bi bu baax a baax a baax a baax. ah. réseau bi moom mooy am problème bëggoon nañ la nag nga waxtaan ak ñun bu baax woote waatal ci 88 628 89 90 nga bës 2 wala 628 28 28 ñu bës 2 wala 33 841 20 69 nga bës 2 bu dee bitim réew nga nekk oustaz nga ne. tey mu dugg. ak sans froid ma ni njaga dinaa ko wax ni ko na ma fexe wutal numéro oustaz bi ma laaj ko ni ko oustaz euh, loo jàng li nga jàng da nga koy utiliser di ko defool wala ko def benn arme boo xamante ni parce que tey dama jàpp ni njaga hmm. démb da ngay xob wax boo xam dama ko bàyyi xel am na ko ci allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér waa ñu ngi dellu ziar ça va alhamdulilah waaw ñu ngi rafetal euh, kàddu yi ak thème bi. jaajëf jaajëf sang bi. jaajëf ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant di siit. ñu ngi lay sant aussi di la ziar bu wér. franchement man man bu ma xëyee chaque jour moom bu ma leen woo bu ma woowul dama leen seen seen mission bi. alhamdulilah jaajëf. jaajëf maa maa ngi Paris mais jour bu ma liggéeyul damay damay jàkkaarloo sama damay pressé sax sama doom sax suba day. euh, devenir papa. Ouais, toi, tu, tu, regardes que ça. Chaque matin, je dis, bah, euh, c'est des missions qui, qui, qui nous donnaient des, des expériences bon, bon conseils. macha allah jaajëf. donc euh, franchement euh, thème bi ñun mënuñu wax mais am na benn témoin fii nii nii nii sama benn mbokk. xamante mm. ne man ci boppam maa ko xam. Euh, kooku jabaram dafa doon parce que bu ñu jiñ liggéey liggéey kese doy leen. parce que mm. foo kooku moom jabaram liggéey ko. waaw parce que man bi ma lay wax nii nii nii man du euh, ma du ma du ma tàggal sama bopp mais dama dama ne dama bokk ñi bindi man xam naa xam naa kooku du du liggéey mais jabaram dafa bëggoon tas eh, eh, eh, góor gi mu dem. Mm. te góor gi bëggul dem dafa doon indi. kii eh, kii eh, copie ci këram. waaw. góor gi mu ngi foofu un jour góor gi eh, moo ko dimbale sinon dafa bëggoon so xaaral bopp dafa buggoon sauter de te te huitième étage la. tëb. góor gi day ñëw day jigéen di indi faram di di nekk ak moom góor gi nekk foofu doomam nekk foofu. wallaay naa si yàlla moom mooy dimbali. Oh. donc du du question liggéey kese. Uh-huh. voilà am na am na am na jigéen ñu koy def ah. franchement ah vraiment mais ñu ñaan yàlla rek yàlla yàlla mu sàmm ñu. amiin sàmm ñu suñu njaboot gi yàlla mu sàmm leen surtout yéen franchement franchement ñu ngi leen ñaanal. Mm-hmm. ñu ngi leen ñaanal ñu ngi leen ñaanal ñu ngi leen ñaanal. te mm-hmm. da ngeen faral di di di di di di yurdu wa in yakaadu lazina kafaru la yuzliquunaka bi absaarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrul alamin. macha allah téeméer yoon. yàlla dina leen musal te yàlla dina leen musal parce que yéen li li ngeen toog ci ñun xam nañ ko. donc euh, ñu ngi leen ñaan ñu ngi euh, maa ngi maa ngi euh, nuyu Oustaz Mouhamed Mbaye Mbaye waaw yàlla yàlla suturaal mu jëf jàmm ak xalaat. amiin te wolof yi leerul donc maa ngi leen bàyyi. ndeysaan asalaamaaleykum wa rahmatulah. sang bi ñu ngi lay jaajëfal depuis France lay wootee di xaar leen ci téléphone bi yéen nit 88 628 89 90 ngeen bës 2 628 28 28 ngeen bës 2. 33 841 20 69 ngeen bés ah, waa Abidjan ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, waa Gambie ñoom soxna Aïda Fallou Thiam. Mhm. Euh, waa Gambie ñoom ñooñu ñu ngi ñuy seetaan di ñu bëggee mantu. gis nga oustaz bu ma ko jotoon benn baat laa koy wax xam nga laxdar yi ma la bi ma la doon wax démb njaga mhm. dafa ni wata la zuzu bi kalaamiha bokk na ci bàkkaari jullit ngay bànneexu ci baatu jigéen ngay bànneexu moo tax boo demee ci alxuraan yàlla daf lay daf koy tere jigéen ñi naan bàyyi leen di di di di di di di di charmer seen baat yi ini mhm. taqaytu na fala taxdaana bil xawli fayet ma allazi fi qalbihi maradun léegi man ko mais pourquoi que euh, nga osé ak xam-xam bi nekk ci yow ngay dem néeg jàmbur njaga ba di fa am batan ba di osé benn heure ak am loo xamante ne l'islam dafa ne Mohamed boo bataa bataa bataa ustaas bi boo ko ubbi woon na muy rangé moom laa la bataa nañ koy defaree ba mu nekk en ordre. waaw booy boon bataa jëkkër ja kenn du ko ranger. mais mais njàkk man jox cër man boo demoon tey ci jumaa. wala jàkk wala ñu lay ci koy gis suñu quotidien ah, jigéen ñuy gën a jox cër ñeneen que ah, gën a fonk ko jëkkër la demal ñibbi dama naa la demal ñibbi waaleykum salaam sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu wér maa leen di ziar bu baax ñu ngi lay jox sa wàcc wàccuwaay di la déglu Diofior la Cheikh Bakary nuyul ñu waa yoor yépp dana ko dégg bu baax. incha allah. seen thème bi depuis démb ba tey maa ngi koy seetlu. waaw. di ko déglu. waaw. mais xam nga li xam nga loolu li koy waral. waaw. sëy yi nga xamee ne dañuy sëy sëy fo. sëy day am kilifa. day am. day am kilifa sëy. kilifa waaw c'est waaw. Mhm, mhm. su fekkee ne danga jël sa nawle dem yéen ko ci jabar. waaw mu takkal la ko te sa waajur dako ti ñooñu amuñu kilifa amuleen kilifa ngeen di fo waaw loolu dañ koy tudd mais du sëy mm. loolu moo tax jigéen yi di fo mm-hmm. sëy da nga war a yëkkati sa kilifa kale dab kilifaam ñu maye leen xew ci ci sëy bi ñu dem wax ko kilifa yi mais ngeen mm-hmm. nekk yónni sa sa sa kii sa moroom jël leen appartement yi foo foofu lu leen neex loolu la ñuy def. dëgg la ndaw si day fo ku góor ki day fo. dëgg la dëgg la li ma la wax. dëgg la dëgg la. ustaas boobu bu leen ko sey bi moo amul kilifa. dëgg la te alxuraan dafa wax ne. Hmm. sëy day am kilifa. dëgg la su fekkee ne mu ngi dégg. ñu hmm. oo kilifa yi ñu réglé ko. Hmm, mais jël ay xale yu ndaw rek ñu yëpp. Oh, macha allah gis nga dafa dugg foo xam ne ñun xalaate wuñ fa sax mais vrai problème bi li nga xam ni moo fondement jafe-jafe sëy bi lii la parce que c'est vrai ah jaajëf suñu papa jooju woo cee jof yoor wax na dëgg de ñoom ñaar ñoo bokk fenn fu ñu nekk ñaareel bi moo tax ma la mantu xel moo garabayam loo gën a dem branche yi gën a ibbeeku mhm. tey ji euh, am na fi benn boo xam te ni yéen ñaar jotoo leen ci mhm. ndaw si bi muy ñëw di def si enregistrement boobu moom ñaareel la jëkkër ji Europe la jógee takk ko bi mu ko takkee dafa jubal si direct dakaar ndaw si sentir ni waa yi satisfaire ko mu ñaan ba waa ji baat waa ji bañ ndaw si ñëw di def si tës bi ñëw di def def si ko ci émission bi mhm. ma yem ci moom ma laaj ko nu mu demee mu wax ma ma woo ma ne ko jox ma numéro waa ji ki may wax pa mag la kilifa la sax ma woo ko parce que tey kenn ku ne bëgg ko la weer ma ma wax ko ni seen bi yëpp demee. mën ko jël jotee na ma gàggale allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu lay nuyu di la ziar bu baax sëñ bi. Mantoulaye ñu ngi lay delloo ziar. ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér. ñu ngi nuyu waa plateau bi yëpp. ñëpp ak lay fay. Euh, seen benn auditrice mu nekk Kaolack. ana waa Kaolack. ñu ngi ziar bu baax alhamdulilah. alhamdulilah nuyu ñu ñëpp. Euh, kii euh, Zik FM dañ ko perte au niveau di Kaolack. Kaolack. waaw depuis une semaine ngi nii presque. jotuñ signal. incha allah kilifa yaa ngi dégg dégg waaw kay nga ah, jàll nañu ko bu baax. mën naa yàlla jaajëf incha allah kilifa yi